con kia đây là bà vâng Mikey Mikey aywa bàyyi ma Maggi man man nga ko jox defal defal mi đây doy na dafa ñëw What's the light in the stop bi yéex na de heure dorom direct yaaw anima def rek Ndeye Ndiaye da lay wax ne ñëw na Ndeye Ndiaye bu mu dem waaw. moytu moytu moytu. Bidi jël leen ni madame Fall. ñoo ngi nii ragal ñu woon aw buur këram ñooy jeeg ñoo toog suñu def liggéey fii ni ko bébé hmm. sakuma sakuma tax la ma ne ñooy jeeg ñoo toog ah def ni ko bébé waxal waay sakuma bébé ba madam Fall ay waay ñooy madam Fall aw buur këram ñu ngi nii benn rek ci kaw keneen bi jàppale ñu xala benn benn ah? benn madam Fall rất là gần khỏe Wow, bal bal. Nó nhul rồi. Nhul nhul rồi.

ñëw. awa xool ñu. Ah, mais awa loo zone.

escorte la escorte la quoi. yow lii mis nga ko tàmm nga ko. Banyak jatuh. aywa sëñ bi tamit kan ngeen ñu bàyyi non tamit mais jàppale nga sa doomu ndey de. ah jàppale nga ko. xeebuma bés bi. ah bàyyi na la jël xeebuma bés bi de voilà. ça va. laa bëgg wax Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

may leen ko dañoo bëgg balaa ñuy takk mu egg ci néeg bàyyi baal leen ñu rek balaa ñuy takk mu egg ci néeg wallaay si sama banna li nga am bés bu rafet bés bu bés bu sedd guy barke borom Tuuba wallaay wala dem leen dugg leen da ngeen dugg

Baby, baby, baby. كانوا غنا غسوا يا خبوتيا صادم من هيك يلي تافلي يا مرحبا يا نموت يا مرحبا يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي Thank you. dëgg yàlla am contentement moo tax soo démb ñu jógee musée ñu sax ba doyal mais fa ñu daal di ñëw ñëw suñu rakk ji Ndeye Ndiaye Banna yaa mbokkum fan dooy macha allah nga xam ne danoo bëgg Adji Mass ba doon xam ko fonk ma di ma macha allah. yan conseil nga koy jox sëy ba sëy bu mu lijjanti bu mu toppatoo bu mu xool bu mu faale bu mu déggoo ko mu lii laa wax. lan ngay wax borom këram. wax dëgg yàlla nee naa ko ndam ndaxte macha allah lam ñu digoon def na ko macha allah. ah loolu xam nga ni ñun yàgg nañu koo dikk na ku ne xam na ni mooy suñu jëkkër <laughs> waa tey sama loxo mi ngi ci sauce mi ngi ci beurre jadida mi ngi ci fromage gruyère mi ngi ci chocolat tout ce qui fait bien des glaçons sama loxo mi ngi ciy baax ndax la raxit yi laa bàyyi bàyyi yebo yi bàyyi suux suxóor yi bàyyi melentaan yi bàyyi jimboo dëbbaale yi bàyyi ñëpp yaa ku ko bàyyiwul xam dañ dugal ci jéeju rëy pare mel ni wifi balaa ñëpp. aji mi ngi ñaaw. barke Sëriñ Tuubaa yaa ko ñaaw. feccikat bu mag bi waaye waaye nday yirim ak a baax nday yirim ak gore moo mën a fecc nday yirim tey lay wax day aj waaw maa leen di fay mhm. waaw tout d'abord leen di nuyu bisu Ndeye Ndiaye ku ma ci gis doo laajte lu tax defena bañ ko waxé waxu tak man la njëkk donc suma fi ñëw rek war naa fee ñëw. mu muñ parce que liko ko ñëpp doon ñaanal li la woon ñëpp dañ bëggoon mu sey surtout ak magay Fall donc dañ koy wax ne mu muñ parce que ben sey neexul mu muñ japp jëkëram lu ko tere mu bàyyi lu ko digal mu def ko waaw déggal gorom def ko comme yaayam bi nekk fii kon dina toog sey da lañ koy wax alors mu nekk célébrité ku ko takk nekk célébrité est-ce que yaakaar nga ne sëy boobu dina yomb ak yan conseil nga koy ah, dina yomb ma ngay Fall ak Ndeye xamante nañu xamante nañu sëy boobu du jafe dina yomb te nday xam naa nday man dina toog dina ko sëyal alors mu nekk doo xam ne peut-être day gis ay feckat yu bëri bu diggee sëy ba moo dul seen fecc fa lay alors est-ce que yaakaaroo ni maanaam mu doon feccee ak jëkkëram dina ko nangoog yooyu non mën na ko bàyyi mu yeggali liggéeyam nday li muy def garaawul mën jëkkër ji mën na ko bàyyi jëkkër ji artiste la aussi ma ngay fa artiste la nday artiste la mën na ko bàyyi mu yeggali liggéeyam allez merci